sëñ Ahmadou Mokhtar ñu euh, ànd ak bokk yi njaboot gi fas yéene koo def euh, ñëpp ko bokk ñëpp nañ ci nañ ko nañ ko àndandoo rek te te gën ci yokk suñu it gën cee gën cee gën cee sàmm suñu positif gën ci euh, taxaw bu baax a baax a baax. ñu ciy woo bëgg yéen murid yëpp. ngeen taxaw ci taxawaay bu mat sëkk te xam ne sëñ Tuubaa lañ koy defal defaluñ ko keneen sëñ Tuubaa la ñuy defal bis bi kon ngeen ko jàpp da ngeen di jàppee yëfi sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo ko moom kon noo koy waatee waaye boole nañ ci murid yëpp murid yëpp lañ bëgg ñu taxaw ci taxaw suñ taxawaay bu mel suñ taxawaay bi bokk jullit bokki taalibe yi woote baa ngoog waajal màggalu xisrul muharram ñaar fukki weeru tamxarit 1346 1446 téeméeri at centenaire ginnaaw bi Bamba Khadimal Moustapha ñibbisee Touba Mbacké almaharousa ñu fas yéene ko waajal le 13 juillet incha rabbi war a dem Louga le 15 juillet a dem albuxaatul mubarak muy njaarim fa lépp amee woon le 19 ak le 20 juillet waaye war a dem Dakar nag jumaay Masaliku Jinaan le 21 juillet loolu lépp nag ñu le 27 juillet ci Daarul Xudus Touba incha